mu nekk naqar ak tiis Alioune Badara Diagne wuy ji suñu boroom ñu gën kaa xam ci turu Golbert Diagne ana moo nekkoon Golbert Diagne ginnaaw ba ko ñëpp ràññeewee ci wàllum théâtre Golbert Diagne doonoon ab artiste comédien buy reetaanloo Sénégal waaye àddina wërngal këpp kenn dootul fàtte kii di Golbert Diagne ginnaaw bi mu ñàkkee bakkanam ñetti fan ci weeru avril ca l'hôpital ca diwaanu ko Saint-Louis ginnaaw ba ko feebar bu metti tëralee ba mu jaaree fa ñàkk ba kanam Alioune Badara Diagne ñu gën kaa xam ci Golbert Diagne amoon na ci lu tolloo ko juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent bàyyeekoo na fi wuy ji suñu boroom muy naqar ak tiis doon lu metti ana kan moo doonoon Golbert Diagne Golbert Diagne ñëpp xàmmee woon ko ci wàllum théâtre waaye wàllum tasum xibaar doonoon ab métier ma ak ginnaaw bi mu ko fréquenté lu ko ñaar fukki at ak ñett Golbert Diagne moom mi nekkoon ab taskatu xibaar nekkoon directeur général bu ñetteelu chaîne de la RTS bi nekkoon ca diwaanu ko Ndar Géej ñu doon koy woowee la voix du nord ñaar fukki at ak ñett yu mu nekk ci wàllum tasum xibaar nekk ko ci rajo régional Teranga FM bu nekk ca diwaanug Saint-Louis ñu taxawaloon ko ci atum 1996 ci njàppandalu ki nga xamante ne moo di xaritam te nekkoon fi njiitu réew bu Sénégal di Abdou Diouf Abdou juuf moomee nekkoon ñaareelu président bu réewum Sénégal xaritoom ak kii di Golbert Diagne doonatul lu askanub senegal réeree ndaxte kii di Golbert Diagne mu ngay xamle ne bu demee ba taxawal rajo bi di Teranga FM nekk ca diwaanu Ndar Géej xaritam bii di Abdou Diouf doonoon na ci ñi ko jàppale ca jooju jamono kii di Golbert Diagne yamul woon rek ci tijji boobule rajo li mu def mooy daal di ciy former ay doomu aadama yu ciy tàggatu ñeel wàllum tasum xibaar waaye it daal di ciy tàggat ñoo xamante ni ci diiwaanuk Sénégal kenn réeréwu leen ndax njàmbaar gu ñu fi wane ñu mën cee ràññee ci tàggat gi mu tàggat wàllum taskatu xibaar yooyee kii di Bougane Gueye Dany ñu mën cee ràññee kii di benn maxtaar nekk ca diiwaanuk 2STV waaye kii di Alioune Badara Fall nekk directeur bu l'Observateur ginnaaw tàggat yu mu tàggat ay kàngam yu nekkee ci wàllum tasum xibaar yamu ca sax waaye ca diiwaanu ndar géej mu nga fa doon amal li nga xamante ne moom lañuy ñuy woowee l'emploi des jeunes maanaam ndaw ñi kenn ku ci nekk mu jàppale la ba nga am ab liggéey mënal sa bopp Golbert Diagne ginnaaw ba muy forme ndaw yooyu kàddoom goo xamante ni moom la ko ñëpp ràññee woon mooy dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo ko gën loolu nekk ay kàddu yu mu doon faral di ñaax askan wi waaye tamit ndaw ya muy àndal ci liggéey bi rawatina doomu ndar yi ginnaaw ab émission bi mu tuddee ndar ràññi bi mu doon amal ca Teranga FM ki di Alioune Badara Diagne daal di ciy wane ngëm-ngëm ak détermination ginnaaw émission boobee nga xamante ni tuddee na ko ndar ràññi mu doon ciy xeex lépp luy jëm ci wàllum suqali ndar ngir mu jëm ca kanam autorité administrative yi ak yeneeni boroom daraja yu nekkee ca réew ma ngir xool naka la ñuy def ba mën a suqali ndar Alioune Badara Diagne yamul woon rek ci nekk directeur général yamul it ci wàllum théâtre bi waaye ku ko xam xam ko ci wàllum social ci wàllum social googee sax moo tax at bu yàlla sàkk Alioune Badara Diagne Golbert doon organiser ay wàccee kaamir ci mbooleem armeel yu nekk ca diwaanuk Ndar ci armeel yooyee sax armeelu marmiyal nekk ca diiwaanuk ndar nege ni tey nga xamante ni fa lañ koy jébbal suñu boroom Golbert Diagne représenté Sénégal fu ne waaye it lii di théâtre mu mën ko loolu kenn dàq ko ci wàllum tasum xibaar kenn demul mu des loolee sax moo waral ci atum 2015 mu daal di bokk ci ñeent fukk ak juróom benn doomu aadama yi nga xamante ni dañ leen a ràññee lool ci wàllum théâtre waaye it ñu daal di nekk ay personnalité élevée ci ordre du grand croix waaye tamit li di mérite bi nga xamante ni njiitu réew mi président de la république Macky Sall ci atum 2015 yëkki na ay médaille daal di leen koy tappal ci seenu dënn Alioune Badara Diagne bàyyi fi naqar ak tiis ñamu doon àndal ci wàllum théâtre bi ku ci mel ni Marie Madeleine la muy naqarlu rekk saa sile tembe bokk na ci Aline Badara Diagne dëddu bi mu ko dëddu waaye it li nga xamante ni moom la mérito muy rendre ko omage duñu ko ko mën a defal ndaxte li mu tombeel di mbas mi ci diiwaanu Sénégal keneen koo xam ne ràññeeku na ci wàllum théâtre di Néné Komé di dellusiwaat ci jaar-jaaram ak Golbert Diagne Golbert Diagne dëddu na wuy ji suñu borom rédaction bu bët set ci samay kàddu di ko jàll askanub Sénégal ala rawatina doomam ji nekk ci métier tasum xibaar di Malal Signor Diagne